rabbi auzu bika min hamazaati shayatin waa auzu bika rabbi an yahdurun mbokk yi jàkkaarloo ki seen chaîne bii di Safina TV ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a sell gën a tedd te gën a matale te yàlla boole ñu ko te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ngir waxtaan ak yéen ci wàllu diine comme ni ngeen ko xamee ci seen émission religion et société tey ci wàllu diine lañ ñëw ci loo xam ne yaakaar nañ ne incha allah ku nekk ci ñun mën na koo jëriñoo ba tax nañu indi ko ngir séddoo ko ak yéen ngir partager ko incha allah di ñaan yàlla nag yéene bi nekk xaalisan li wajhihi mu sell ngir jëmmam euh, li ñuy wax lazzatul kalaam ak wala bokk fasaaxa goo xam ne dana jengloo boroom wala dana ko bewloo ba mu wax loo xam ne waru koo wax wala wax ja ñàkk a nekk ngir yàlla loolu yépp yàlla musal ñu ci lépp nekk ngir yàlla lépp nekk njëriñ ci ñun ak ci yéen incha allah moom mi nga xam ne mooy boroom tawfiq ak taysiir yàlla nañu dëppale loolu tey nag ñu fas yéene kon waxtaane comme niñ ko junjee li ñuy tuddee ak daruriyaat al xamsa wala ad daruriyat al xams comme niñ ko siiwee mooy juróom yi nga xam ne euh, munta ñàkk ci doom aadama bi ci jullit bi ngir mu nekk jullit piir il faut juróom yooyu mu matale ko te di ci bàyyi xel danañ ci ñëw benn ak par benn incha allah nga xam ne benn bu nekk ci juróom yooyu war na ko wattu ngir euh, sàmm boppam ba mën a nekk façon nit bi nga xam ne moom la moom lañu bëgg ndax lislaam dafa ñëw ngir defar doomu aadama ngir def ko ci façon boo xam ne dana mën a dund ci àdduna ci li tax yàlla indi ko fi ci jaamu yàlla ca nam ko bëggee ci dund àddunaam it ca nam wooree te du ko yàqal tamit beneen dund ba nga xam ne ma ngay ñëw te mooy dund àllaaxira kon loolu lañ fas yéene waxtaane incha ñaan yàlla kon mu may ñu tawfiq kon bi ci njëkk mooy euh, ci juróomi daruriyaat yooyu nga xam ne alquran saxal na ko waaye tamit xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa saxal ko boroom xam-xam yi wax ci kon bi njëkk ci yooyu mooy xifzu diini mooy wattu sa diini wattu sa diine bokk nañ bokk na ci gën a am importance ci juróom yooyu ñi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane incha allah euh, buñ ne wattu sa diine nag liñ ci namu mooy nga saxal ponki diine ji ponki diine yi nga xam ne juróom la nga xam ne la la cay dugal mooy nga seede ne amul benn buur bu dul yàlla seede ne yonent bi sallallahu alayhi yàlla moo ko yónni loolu mooy bunt bi gannaaw ga taxawal julli ci ay ëram ak it def ko ca nag na ko yàlla santaane kooku bokk na ci wàllu wattu diine ak charte ya nga xam ne jiit na julli bu fekkee yàlla war wërsëgal na la alal ngay joxe azaka xam ñaata ngay am soog a commencé joxe azaka ak boo amee loola ñaata nga ca war a génne jox ko ñi nga xam ne ay miskin lañ nga xam ne loolu xàqu yàlla lañ koy tuddee bu loolu weesoo woor weeru koor bu fekkee sa wér may na la ko Ah, su boobaa nga woor ko day nekk farata ki nga xam ne nag wéram mayu ko ko su boobaa te docteur ne ko munoo woor su boobaa mu lott ci woor su boobaa kooku kon mën naa ñàkk a woor ba ci topp mooy aj màkk ci koo xam ne sa wér may na la ko sa poche may na la ko aussi ki noonu tamit sécurité ci yoon wi ba baa ngay ñëw yooyu yëpp boo amee mën ngaa dem nga aji màkk kon ponk yi moo ci jiitu bu ponk yi wéyee àtte yi àttey diine niki noonu tamit lam santaane ak lamu tere ci yu sew sew yu sew sewaan danañ koy faral di misaal ci euh, suñu dund àdduna bi par exemple booy liggéey ci benn société këru liggéeyukaay bu nekk rek am na lu bëgg ak lu mu bañ muy li ñuy tuddee ñu dexañ ko ci li ñuy tuddee réglement intérieur boo demee lañ lay njëkk wan mooy règlement intérieur yu kër gi lii la laaj lii la bëgg lii lay bañ boo defee lenn ci loo xam ne tere nañ ko fa nag bu fekkee loo xam ne la lu oyof la mën nañ laa sanctionné euh, sanction boo xam ne bu oyof lay doon wala mu nekk sanction bu diis selon la nga euh, la nga def maanaam na nga na nga teggee maanaam seen doxalin ñoom am na loo xam ne nag boo ko defee moom dañ lay dàq automatiquement te doo am benn lay ci ñoom diina tamit noonu la demee boo ciy dugg ñu ne la ponk diine lii la lii la bëgg lii lay bañ boo ci duggee lépp lu diina bañ waroo koo def ndax danga tënku kon boo ne jullit laa rek tënku nga amatoo droit dégg ñu ne yàlla <clears throat> nee na nàngam nga ne mais wala ñu ne yàlla euh, dégg nga lii la àtt nga teg ci sa xalaat kooku benn jullit amu ci droit ndax bokk na ci li nga xam ne day génne jullit ci diine danañ ko du ñàkk ñu ñëwaate ci biir waxtaan bi incha allah niki noonu tamit ñàkk a doyadal ñàkk a doyadal lenn ci loo xam ne diina santaane na ko donte sax dañ ne nangam dañ koo sib ndax liñ sib mooy loo xam ne boo ko defee doo am bàkkaar waaye euh, nga ñàkk koo def mooy li gën wuteeg lu xaraam nga xam ne boo ko defee dangay am bàkkaar mbugal mën na la caa fekk bés boo dajeeg sa boroom waaye tamit ñàkk gaa def ngir ragal yàlla dana la jural tuyaabo euh, nga gis ne ñu ne lii luñ sib la donte sax doo ci am bàkkaar nga ne naa ko bàyyi ndax bu ma ko defee mën na maa yóbbu ci lu kooku lañ soxla waaye bu fekkee yow dag ne lii dañ koo sib rek bu fekkee jullit bi dafa doyadi wala mu sàggan ba mel ni man ne luñ sib garaawul mën nañ koo def wala nangam dañ koo sopp nga xam ne boo ko defee am tuyaabu boo ko deful tamit doo ci am bàkkaar nga ne jarul def di ko doyadal loolu mooy waral yóbbu nit ba muy doyadal diine ndax boo lu ma luñ sopp duma ko def ndax du obligation moo lay yóbbu ci nga doyadal na mooy lépp lu yonent bi defoon wala mu santaane ko wala ñu def ko ci kanamam te terewu ko soo doyadalee na <clears throat> moo lay yóbbu ci nga doyadal farata waaw étape la par étape kon jullit lépp loo xam ne dégg ñu ne diine rafetlu na ko donte du obligation rek war na lu farlu ci ndax nitu yàlla yi foofu rek lañ rawee ñépp macha allah niki noonu tamit lépp loo xam ne day kontranteeg diine day maanaam euh, euh, day nekk loo xam ne dafa dafa safaanoo ak diine tamit mu bàyyi ci xel loolu bokk na ci wattu diine loolu moo tax kon yàlla farataal lu bari ci ay jëf comme niñ ko waxee ci commencement bi tudd ñaari seede yi ñaari baatu seede yi nga xam ne boo ko tuddee benn yoon ci sa dund rekk doy na niki tamit julli ci ay waxtoom koor niki tamit joxe azaka ni nga xamee na chariatul islaam ye ñaax na ñu ñaax nañu ñuy def yooyu niki tamit lañu ñaaxee ci ñuy def yeneen jëf yoo xam ne ci coobarewu la aju waaye mën naa eggale nit ci daraja boo xam ne dana mën a def li nga xam ne ay obligation la euh, maanaam comme ci ni ko yàlla bëggee ndax suñ borom tabaaraka ko taalaa mi wax ci xadis ne jaam bi du dañ di ma jéem a jege jegelu ci ay naafi la yoo xam ne ci coobare boppam la koy def ba ma boole ko ci sama bopp ba nga xam ne waxam man la jëfam man la déggam man la léppam man la waaw nga xam ne sa lépp yàlla lay doon loolu yaa ngi koy amee ci daraja ay naafi la comme ni mu waxee tamit ci même xadis bi ne amul lenn benn jaamu yàlla bu bu nit di def euh, ba jege ma lu ëpp doole li ma farataal ci farata yi nag ci ngay jaar bu fekkee farata yi mat na naafila yaa ngi cay teg yàlla soog ko accepté moo lay yóbbu ci daraja bi ñu wax léegi waaye bu fekkee farata yi matul ngay def ay naafila kooku su boobaa du am du am du am solo mooy ki nga xam ne day jaay euh, kooku day am capital capital bi nag kon mooy tolloog farata yi naafile yi mooy yi nga xam ne ay bénéfice la boo amul capital bu mat euh, munoo commerce ba am ci bénéfice wala bu fekkee yaa ngi commerce di perte euh, sa capital di dem kooku bénéfice ba du ñëw waaye bu capital bi mate ngay commerce jaaree ko ci yoon bi niñ ko waxee su boobaa bénéfice bay ñëw su boobaa yaay borom te tamit dana wattu capitalu alal ji kon loolu mooy farata yi ak nawaafil yi niki noonu tamit bokk na ci wattu diine euh, bàyyi xel mbooleem loo xam ne day yàq sa diine mboolem loo xam ne day yàq sa diine boo ci duggee sa diine day yàqu donte sax loo xam ne dana la jural avancement sa wàllu àdduna waaye wóor na leen lii day yàq sa pas-pas wala dana am lu mu wàññi sa diggante ak sa boroom wala daal mu nekk loo xam ne euh, Euh, sa xel dalu ca su boobaa kon kooku nga bàyyi ko mooy nga wattu sa diina te doyloo sa boroom mi nga xam ne moo yor wërsëg bokk na ci wattu diina tamit di dégle lu baax di tere lu bon ndax yàlla wax na ci alquran ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar waaw da ngeen a nekk ñi nga xam ne yéen a gën ci xeet yi ci digle gu ngeen ni digle lu baax nag di tere lu bon waaye bu fekkee jullit du digle lu baax du tere lu bon dégg nga jullit yépp defatuñ ko su boobaa nekkatuñ gën ji xeet ku nekk la nga tane sa moroom ci lu baax nanga ko ko laaye biir ci yoon woo xam ne moom la sharia santaane te mooy bil xikmati wal mawizati al ci façon boo xam ne dana sawar ci dégg li nga koy wax dana sawarit ci jëfe ko niki noonu tamit euh, nit ki képp ci ñun bu defaree jikkoom di jaamu yàlla nañ ko waxee nam ko nañ ko nam ko santaane def la mu war a def su boobaa dana nekk royukaay boo xam ne ci jëfam sax maanaam moom mi ngi digle lu baax donte waxu ko ci jëfam mi ngi tere bon donte jëfu ko loolu la Seydina Omar doon wax naan kunu duaatan saamitiin da ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di woo nit ñi ci lu baax te du ngeen wax kon kooku ci say jëf lay lay doon yàlla nañu fi yàlla eggale ci boobu wala ci yooyu daraja Euh, kon lool lu mat a bàyyi xel la rawatina ki nga xam ne tamit yàlla daf koo def njiit wala yàlla daf koo def mu jiite mbooloo wala mu yilif ay nit yor ay responsabilité kooka tamit loola mu yor moo xam ci wàllu àdduna la jëm wala ci wàllu gumman di doon war na cee wattu kon turu diine euh, kon loolu mooy li nga xam ne mooy wattu diine ci daruratul xams bi ci topp mooy euh, wattu bakkan nit ki aar bakkanam aar boppam mooy ñaareel bi ndax ci wattu gu muy wattu bakkanam ci lay maanaam nekkee maanaam ci lay aaree dundam niki noonu tamit ci lay amee teraanga ci lay teddalee boppam ci lay amee ak mucc ci bépp lor lépp loo xam ne day tilimal sa bakkan walla lépp loo xam ne boo ko defee ci ay bànneex walla ci loo xam ne Euh, euh, lu mu mën di doon loo xam ne da lay jëmale ci loo xam ne day yàq sa bakkan euh, su boobaa kon kooku dañ koy tere mën nañ cee cité kon shahawaatu nafs mooy ay bànneexu bakkan yi nga xam ne mooy alak doomu aadama kooku képp ku ko moytu yaa ngi wattu sa bakkan kon kooku lu mat a bàyyi xel la kon ni nga xamee ne kon wattu bakkan it bokk na ci mm, nga xeex ak moom ci lépp loo xam ne dégg nga da koy jalgati ci sa wàllu bopp yow ci sa bopp waaye tamit wattu bakkanu doomu aadama yi nga xam ne ñoom mu bokk ak dund bi lépp loo xam ne day lor doomu aadama nga bañ ko def lépp loo xam ne tamit gis nga ne doomu aadama bi mi ngi koy def te da koy lor te xamu ko nga fexe ba mu bàyyi ko maanaam aar sa bopp aar say mbokk jullit kooku tamit ci wattu bakkan la bokk kon kooku lu mat a bàyyi xel la kon bokk na ci bu ñuy jël exemple foofu rek mooy sàmb sa environnement ci aar sa bakkan la bokk ndax environnement bi bu euh, bu bu bu yàqoo wala pollution ya cay am ak yooyu noonu ñëppay bokk loru kon boo koy aar yaa ngi aar sa bakkan niki noonu tamit kër ga nga dëkk wala fa ngay dund nga xool lépp loo xam ne day lor wala dana indi ñàkk wér-gi-yaram nga fexe ba loola sori fa kooku ci aar bakkan la bokk bu dee ci sa wàllu bopp nga fexe ba lépp looy dugal ci sa biir na nekk loo xam ne lu indi lu la yokk wér-gu-yaram la ah wala loo xam ne dana la aar ci ay feebar lay doon kooku ci sa aar sa bakkan la bokk moo xam loola euh, ngay dugal sa euh, loola ngay def ngir aar sa bakkanit ci tàggat sa yaram la ba nga xam ne euh, maanaam foo toll da nga mën a ànd nekk en forme danga mën a am énergie ngir mën a dund ngir mën a jaamu yàlla kooku tamit ci aar sa bakkan la bokk kon kooku kon ñu bàyyi ci xel kon lépp loo xam ne dana wuyu aajo doom aadama rek ci loo xam ne dana tax mu gën a sentir boppam ci dund bi gën a mën a euh, am wér-gi-yaram gën a mën a euh, def liggéeyam gën a mën a jaamu boroomam loolu ci aar bakkan lay lay dugg muy lu mat a bàyyi xel kon bokk na ci yi nga xam ne tamit euh, ci daruraatil xamsa la bokk balaa ñuy génn sax ci aar bakkan bokk na ci kon tamit yi nga xam ne daf koy menacer nga moytu ko lu mel ni ki ki nga xam ne moo tax yàlla xaraamal xaru ak lépp loo xam ne boo ko defee dalay jëmme ci alak sa bopp moom la alquran naan wala tulqu bi ay diikumu ila tahlukati bu leen dugal ci seen bopp ci loo xam ne da leen di kon kooku jaam bi war na ci bàyyi xel ci lépp loo xam ne kon daf koy def tam koy jural alkande moo xam lu muy noyyi la moo xam lu muy lekk la moo xam lu muy naan la na ko na ko moytu kon loolu jar na bàyyi xel ni ki noonu tamit ci lañ xaraamale rey bakkan ci lu dul xàqu yàlla ki nga xam ne euh, dafa rey bakkan ci lu dul xàq kooku fa jazaauhu jahannam bu fekkee moo ko tey rey bakkan ci xàq nag mooy ku rey bakkan atekat bi war laa rey kooku lislaam moo ko àtte te àtte bi day dugg ci tamit euh, wattu bakkanu doomu aadama ndax bu fekkoon ku rey ñu rey la su boobaa rey gi dana wàññeeku alquran ko wax wala kum fil qisaasi xayaa waaw euh, qisaas mooy fayantoo ku rey bakkan ñu rey la kooku dund moo ci nekk ndax buñ ko defee rek rey gi wàññeeku kooku lu mat a bàyyi xel la kon sharia moo ko àtte kooku kon ci wattu bakkan la bokk kon loolu lu mat a bàyyi xel la bo beneen bi ñetteel bi ci yi nga xam ne mooy daruraatul xams mooy jullit bi wattu xelam lépp loo xam ne day tax sa xel di gën a màcc di gën a màgg di gën a dolleeku jullit bi nekk ci kooku farata la ci moom ñu bàyyi ci xel kon chariatul islaam yi kon dafa jox importance bu mag li nga xam ne mooy xel Euh, ki noonu tamit jox na ko wàccuwaay boo xam ne bu kawe la ndax euh, xel bokk na ci charte yi nga xam ne moo tax ñuy togg nit ki mu jëf mu jaamu yàlla boo demee ci charte yi julli dañ naan la bokk na ci charte yi balaa mu lay war nga am xel ki nga xam ne amul xel yàlla tegu ko dara kon loolu lu mat a bàyyi xel la ki amul xel wala xale bi nga xam ne xelam màccagul niki noonu tamit ci lañuy ràññee euh, doomu aadama ci xel lañ koy maanaam ci ci la ñuy mën a distinguer nit ak yeneen mbindeef yi nga xam ne duñ doomu aadama moo tax yàlla bari na ci alxuraan lu muy tagg ñi nga xam ne seen xel dañ koy jëfandikoo di ci xalaat waaw dañ koy jëfandikoo di ci xalaat inna fi zalika la ayatin li xawmi yatafakkarun bari na lu mu koy wax ci alxuraan la ibratan li ulil bàpp moom buy wax rek boroom xel yi kon lay lay waxal kon ci loolu kon aaya yooyu ñu tudd yàlla day ñaax doom aadama bi ci muy def tab dabbur di setantal waaye di xalaat tamit ci lépp loo xam ne ma ngi cay dugg ak lépp loo xam ne ma ngi cay génn ndax ba euh, suñ na wax na di nettali ci benn baytu shiar mu ne njàmbaar ak xalaat buñ dajee ci doom aadama kooku amul lum lum munul lu muy song te du ko daane njàmbaar ak xalaat buñ dajee ci doom aadama amul lu muy song te du ko mën a daane waaw waaye njàmbaar goo xam ne àndul ak xalaat kooku borom day tëñëx tëñëxi rek kooku mën naa am li mu bëgg mën na koo bañ a am wala façon ba mu koy amee du bokk ak euh, nam ko bëggee waaye xalaat boo xam ne tamit àndul ak njàmbaar toog rek di mébét di xalaat lii laa bëgg te defoo benn effort pour am ko tamit kooku doo dem fenn kon ñaar yooyu ñoo mën a ànd looy dugg lu nekk nga xalaat ko bam mu jub nga ànd taak njàmbaar it pour am ko kon kooku la junj foofu yal nañu ko yàlla fayal kon kooku ci de ci jëfandikoo sa xel lay dellu nga xam ne kon bokk na ci wattu xel moom ndax xel feeg yaa ngi koy jëfandikoo rek mu ngi gën a màgg di gën a yokk niki noonu nga xamee ne kon Euh, wattu xel euh, ci di sàkku xam-xam di yokk sa xam-xam saa su nekk ci domaine bu nekk di di ci yokk sa bopp kooku tamit bokk na ci wattu xel nit ki di wattu xelam fexe bay xàmmee li nga xam ne day lor ak lu dul lor xàmmee li nga xam ne ay naxe la ak loo xam ne euh, dëgg la xàmmee dëgg ak caaxaan yooyu yëpp bokk na ci wattu xel rawatina kon ci jamono bii lañ ko gën a soxla muy jamono boo xam ne tappale yi bari na rawatina ci diina ji naxaate bi bëri na manipulation yi bëri na loolu yëpp li la ci mën a musal nag mooy sàkku xam-xam xam-xam boo xam ne tamit dana ànd ak euh, xel mu màcc nga xam ne dana ànd ak li ñuy wax ruuxul idrak ruuxul idrak mooy nga jëfandikoo sa xel ci façon boo xam ne lépp loo xam da nga xam nan nga koy dëppalee ak réalité yi nan nga koy jëfandikoo bu laajee loo ci xiyaas ak yu mel noonu euh, danga ko mën a def donte sax loolu temu boppam sax la war a doon waaye ruuxul idraak mënu see ñàkk ngir nga mën a jëfandikoo li nga xam mën nañ ko tëgg tënk tamit ci xàmmee ndax xam bu àndul a xàmmee kooku mën na bañ a jëriñ boroom yooyu yëpp nag ci xel lay bàyyi ko niki noonu tamit ci la lislaam di xaraamale lépp loo xam ne day tax xelu doomu aadama dellu ginnaaw ndiki yi nga xam ne euh, nit ki da koy jël di màndi wala mu koy jël muy muur xelam ki sàngara wala ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo ay affaires yu ñuy tuddee xaw ma gens lañ koy tuddee wala yu mel noonu wala dorog wala ay yàmba yooyu yëpp moo tax lislaam xaraamal ko parce que day faagaagal xelu doomu aadama boo koy jël balaa yàgg léegi nga euh, yéey say sagar kon lépp loo xam ne dafay jëme doomu aadama rek lislaam daf koy tere bokk na ci yi nga xam ne kon daruraatul xams ñeenteel bi mooy xifzu nasli wattu euh, ngerte maanaam wàllu juriin euh, ñu bañ a nekk comme ay mala la lislaam bëgg ku nekk koo jot rek maanaam àndal doom juddu fa doom yi kenn xam seen baay wala société bi jaaxasoo moo tax lislaam organisé li nga xam ne mooy ngerte nga xam ne munoo ko amee lu dul ci Euh, relation boo xam ne lislaam daf ko daganal euh, ci charte ya ànd ak yëpp su boobaa nag doom ji ci juddu mën a nekk doomu yoon loolu mooy kon nas la nga xam ne ci alaqatu zawjiya lay jóge mooy relation boo xam ne sharia moo ko autorisé nga xam ne du nekk relation boo xam ne bu xaraam la comme ni ko xeexkatu lislaam yi bëgg ñu gëm loo léegi fexe ba def suñ xel yi ci loo xam ne ci ay xalaat lañ ko jaarale bëgg na daal nit dafa war a am liberté ku la neex àndal ku la neex sëyal ku la neex defal lu la neex fu la neex amee doom te doom jooju dañ ko war a reconnaître déedéet loolu sax tax na ci li tax lislaam ne doomu njaaloo du doon ngir rek bëgg a organiser société bi mu tegu ci yoon ndax bu ne woon doomu njaaloo day doon rek kon su boobaa sanction amatul kum neex rek mën ngaa am ku la neex ne kii sama doom la wutal ko kayitu juddu mu nekk sa doom nga reconnaître ko boo dee mu donn la su boobaa loolu bàkkaar gënu koo rëy képp koo xam ne kon euh, nattu yàlla dal na sa kaw dangay ngay jullit ba nga am doom ju mel noonu nanga nga fexe kon ba du la doon ndax bu la boo ko fi bàyyilee lu tax mu lay donn ah su boobaa yàgg yàlla da ngeen ko layoo. ki noonu tamit moo tax charia di ñaax ci sëy ci takk soxna ndax euh, sharia yi nga xam ne ñoo jiite woon lislaam lu demee ni ki diine nasaraan amoon na fa ay nit ñoo xam ne dañ doon volontaire wu ba léegi naan ay labbe lañ def seen bopp duñ takk soxna am ñoo xam ne dañ naan ñoom ay sœur lañ duñ duñ am jëkkër waaye lislaam yàlla yoon bi salaa salaam daf ne laa ruhbaaniyata fil islaam laa ruhbaaniyata fil islaam ndax gis na dérapage yi nga xam ne mi ngi am ci yooyu ndax gën da nga gis koo xam ne daf ne moom laa ba pare di sàcc di mooy yàlla ci suuf ak yu mel noonu loolu la lislaam doon bañ nag ba tax mu ne kon yonent bi salaam daan ne sëy ci sama sunna la bokk te képp koo xam ne sib nga sëy bañ nga ko kon kooku sib nga sama sama sunna moo tax yonent bi ne woon yéen ñi nga xam ne ay jeune ngeen ku ci mën a takk jabar te mën ko nee na ko def nee na ku ko mënul nag nee ku ko mën nanga ko def ndax moo gën a dal xel mooy tax tamit nga gën a sàmm sa bopp waaye ku ko mënul nag nanga woor ndax woor day dagg bànneex yi nga xam ne moom ngay yëg-yëg ngi ngay am nga xam ne moo la nar a jëme ci lu xaram hakaza kon kooku lu mat a bàyyi xel la bokk na kon ci xifzu nasl euh, waral gi nga xam ne yàlla waral na ko ci ngay dundal euh, say doom di leen toppatoo di leen sàmm boobaa ñuy majeur niki noonu tamit lu jiitu sax seen juddu nga leen sàmm bañ nekkee ci seen biiru yaay gannaaw ba leen tànnalee yaay ju baax muy point bu am solo tànnal sa yaay sa doom yaay yaay tamit tànnal doomam façon baay nga xam ne su boobaa kon ku nekk bu tànnee ka nga war a tànn te teg ko ci principe bu lislaam su boobaa doom yu mel noonu bu bëree rek société ya cay juddu buñ bëree su boobaa société bi dana dana jaar yoon hakaza kooku kon lu mat a bàyyi xel la Euh, bi ci topp mooy xifzul maal moo ko juróomeel mooy wattu alal nit ki wattu alalam bañ koo yàq euh, nit ki noonu tamit mooy bañ koo yàq bañ koo dugal ci loo xam ne cànkute lay doon ndax nit ki lépp loo xam ne am na ko ci alal dépensé ko mu néew wala mu bëri keroog yomal am dana ko justifier benn par benn justification ñi nga xam ne ay comptable lañ ñoom Abdoulaye Faye xam nañ lan mooy justification waaw nga xam ne boo nekkee ci entreprise lépp luy génne wala lépp luy dugg da ko justifier nga xam ne danañ ko bind facture ba koy wane wala reçu bi wala pièce de kees ba nga xam ne danañ ko enregistrer ci seen logiciel yooyu ca ca sa sari ba wala ca ca Excel ba buy lu mat a bàyyi xel ak bu nekk ca compte ba nga koy dugal waa yaakaar naa sama gars yi def comptabilité xam nañ li may wax ci plan comptable ba ak yu mel noonu waaye nag comptabilité boobu li muy rigoureux yépp ak nga xam ne lu ci manqué lu nekk war nga ko justifier ndax année bu bu jeexee war nga def bilan kooku tamit war nga ko bàyyi sa diggante ak sa borom ci alal mu la denk ci wërsëg moo xam mu néew wala mu bëri moo xam ki bëri alal wala ki nga xam ne sax amagul dara mel ni man lépp loo xam ne dépensé nga ko su boobaa balaa ngay euh, dugg aljanna balaa la yàlla àtte danga taxaw ci kanamam ne nangam fii laa ko dugal nangam fii laa ko dugal benn par benn loolu moo waral nag ñu ne kon balaa bés boobu di ñëw nit ki war naa wattu alalam xam naka la koy dépenser xam fan la koy dugal ak i tamit gannaaw ba nga xamee ne am na ko ci anam bu bu lew alal ju lew kon kooku lu mat a bàyyi xel la bokk na ci tamit moytu riba lépp loo xam ne day rax alal te nekkul lu law doomu aadama bi moytu ko niki intérêt bancaire yi wala alal joo xam ne dangaa naxaate ba am ko wala alal joo xam ne danga koo am ci turu diine te nekkul loo xam ne loo yelloo la waaw alal joo am ci turu diine comme niñ ko jàngee ci lax laxdari mooy al aklu bi diin waa ku mel ni muniiru nga xam ne jàkkaarloog nit ñi war na leen dafa am diine hmm? di wax ci diine ñëpp di ko dégg waaye wax gam yu wax ci diine yépp mooy am siiw siiw ci ba nit ñi xam ko te nit ñi boo siiwee di génn ci image yi rek di wax ci euh, ci bi ci mbooloo yi ci diine loola nit ñi sopp la ci bala ciy jox xaalis fekk yow dundoo diine jooju ah su boobaa yaa ngi lekk ci diine sa alal jooju ngay lekk lewul dafa mel ni bëri na ci jamono waaye bu fekkee la ngay wax nag yaa ngi koy dund te jubluwoo ci dara lu dul ah, euh, lu dul maanaam gindi nit ñi jëriñu ci jëriñaale ci nit ñi te yàlla ñu ko yàlla defal boobu la ñuy sàkku yàlla ñu ko yàlla yombalal ah su boobaa loo ca lekk mën na mën na lew nit yéene la dara jox la ko mën na lew waaye bu fekkee yow loolu rek nga ci jublu te sax dundoo ko ah su boobaa day mel ni koo xam ne euh, zindiix la day woote loo xam ne dëgguwul ci xolam yàlla ñu ci yàlla musal kon wattu alal kon yooyu yëpp da ciy da ciy dugg bokk na ci tamit buñ ne wattu alal nit ki dem wuti dem a ñaq am loo xam ne moomal na ko boppam ndax yonent bi salaam nee na al yadul ulya xayru min al yadi sufla loxo boo xam ne day laaj ñu koy jox mooy loxo bu suufe waaye loxo bu kawe nag mooy ka nga xam ne day joxe yonent bi salaa nee na kon kiy joxe moo gën ka ñiy jox euh, benn jour nañ ko diw de day naafila guddi di wor bëccëg yi waaw mu ne kan moo koy dundal ñu ne ko benn mbokkam bu mu nekk ak moo koy dundal moo koy jox añ moo koy jox reer mu ne kook di ko dundal moo ko gën donte mi ngi naa naafila guddi di wóor bëccëg ka koy dundal moo ko gën kon ah jaamu yàlla baax na lool waaye am loo toog ba mën a jaamu yàlla sa xel mën a dal kooku tamit baax na. Ah, boo ne bu ma amee alal ci laay gën a mën a jaamu yàlla kon boo amee alal alal ja ngay jaamu loolu am na ñu ko déggee noonu waaye ah, ki nga xam ne dafa am alal nga xam ne xelam dana dal nga mu gën a mën a teewlu borom bi. alal ja mu koy dépensé ci li yàlla bëgg kooku jaamuwul alal ja mais yàlla lay jaam ndax lan innamal amalu bi niyaati selon yéene ba mu ca am rek waaw bi mooy définir li muy def waaye bu fekkee moom yéeneem mooy jaamu yàlla ca alal ja kese ah su boobaa kon jaamuwul alal ji mais yàlla lay jaamu waaye boo xatalee déggin bi nag mën nga ne alal ji lay jaamu déedéet kon balaa ngay gën a surtout jamono bii sax balaa ngay gën a mën a jaamu yàlla dëgg nga nga nga am loo toogaale ndax boo amul dépense xam naa sax célibataire yi ñoom sàmb duñ ko xam waaye boo amul dépense pour nga julli julli gi egg ah xanaa yàlla may la imaan dëgg day jafe torop yaa xalaat bu ma paree fan laay lijjantee dépense man lii fan laa jëm moom tem sax yow sa xel du dal ba nga xam ne euh, jaamu yàlla doo ko def na ko yàlla na ko yàlla santaane kon kooku lu mat a bàyyi xel la kon alal am alal baax na lool donte sax nag bëri na lu muy yóbbu ni safara ndax mooy indi mbewte ak yenn yi waaye kon nit ki dafa war a préparer bakkanam ci jiitu ba pare bu wattoo diineem wattu bakkanam wattu xelam kon kooku saa bu amee alal alal yiw la koy yokk waaye du ko yokk lan euh, leneen du ko yokk safaan kon kooku lu mat bàyyi xel la kon loolu mooy yi nga xam ne ad daruraatul xamsa la am na nag ñu ciy boole wattu sa der nit ki sàmm deram ci loo xam lépp loo xam ne da koy tilimal moo xam ci wax wax joo xam ne nit ñi dañ la ciy xepp moo xam dem foo xam ne euh, ku la fa gis nga rus bëggoo nit gis la fa euh, fépp foo borom benn borom xam-xam day day wax ne mu ne fépp foo xam ne bëggoo dee fekk la fa bu fa dem waaw fépp foo xam ne buñ la fa séenee sa der yàqu wala lépp loo xam ne boo ko waxee sa der yàqu wala képp koo xam ne boo àndeek moom wala nga toog ak moom sa der yàqu lislaam daf la ko tere moo tax ñu tere la toog ak kàccoor wala di ànd ak moom wala di jëflanteek ay nit ñoo xam ne dañoo louche yooyu yëpp nit ki daf ko war a moytu ngir sàmm deram nit ki bokk na ci li muy sàmmee deram donte sax da ngay joxe sa alal ngir sa der rafet kooku lislaam santaane na ko nit ki noonu tamit ci ay jaamu yàlla ak yu mel noonu yooyu yëpp kon danañ ci seetale der waaye nag euh, kon kooku jar na bàyyi xel moo tax am boroom xam-xam yoo xam ne ku mel ki Shawkaan yi euh, ak ñu mel ni moom ñu boole ko ci yi nga xam ne ak daruratul xam si nga xam ne mun a ñàkk ci doomu aadama ngir mu nekk jullit dëgg dëgg dëgg il faut mu boole ko ci kon ak daruratul xam si mu ngi noonu wattu diine la wattu sa bakkat wattu sa xel euh, wattu euh, njureel maanaam nit ki wattu mën yoom fan la koy def mu nekk fu dagan nit ki noonu tamit wattu sa alal ñu yaakaar ne kon euh, danañ ci jëlee njëriñ ñi ñu ko doon waxtaanee d'abord yéen ñi ciy seetaan tam ngeen jëlee ci njëriñ yàlla na ko yàlla def in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh